aousubillahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil aalamin asalaamualeykum wa rahmatullahi baaxoo seetaan seen télévision Xasaay TV noo ngi leen di nuyu di leen jaara di àndaat ak yéen ci jataay boobu baaxoo nañ ko ànd ak yéen weer wi teroo ba léegi di jataay boobu liñ ci xamee di ko miinee ko mooy leeralante leen ci naafila yoo xam ne dañ koy jukkee ci xoratul indi bu Serigne Chouaïbou Mbacké tey jii nag dëppoo guddi juróom-ñeenteel gi naaf gi ñeenti rakkaa lay doon rakkaa bu ci nekk faatiha ak tabar yada ñetti yoon ak xul huwallaahu ahad benn yoon faatiha doon benn yoon ak tabar ñetti yoon ak yoon bu ko def des na ko bindal tuyaabay muñkat yëpp ak santkat yëpp te dana mel ne wàcc na ab kaamil te des na ko bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane ko julli te des na digal ñaari malaaka ñoo xam ne ñooy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis penc yàlla dana ko nangul ak julleem ak kooram te dana ko dimbali dana ko taxaw it ba kenn du ko mën a lor dana ko musal seytaane ak ci njàqare yépp te bu bis penc ba des na ko boole ci ñi nga xam ne duñ gis lu leen di ragalloo mbaa lu leen di jàqloo te des na ko ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yépp mu dugg ci bu ko neex te dees ko xisaab kon guddi juróom-ñeenteel gi ku ci julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk faatiha benn yoon ak tabbat yadaa abi lahabi wa tabb ñetti yoon ak qul huwallahu ahad benn yoon ñu baamtu ko ñeenti rakka raka bu ci ne fatiha benn yoon ak tabat yadaa ñetti yoon ak qul huwallahu ahad benn yoon ku ko def des na ko ci bindal tuyaaba yi muñkat yëpp ak santkat yëpp te dana mel ni wàcc na ab kaamil it te des na ko bindal tuyaaba yi ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane ko julli te des na digal ñaari malaaka yoo xam ne ñooy ànd ak moom di far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bés di ñëw te yàlla dana ko nangul ak julleem ak i ko dana ko dimbali itam taxaw ko ba kenn du ko mën a lor dana ko musal ci seytaane ak njàqare yépp bu bis penc baay itam des na ko boole ci ñi nga xam ne duñu gis lu leen di ragalloo mbaa lu leen di jàqloo mooy alladina laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun yàlla na ko ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yëpp itam mu tàbbi ci bu ko neex te kenn du ko xisaab kon loolu mooy guddi juróom-ñetteel gi ñu bàyyi ko xel bu baax fàttaliwaat naafila gi rek ñeenti rakka lay doon rakka bu ci ne fàttee benn yoon ak tabar yi daal ñetti yoon ak xul wallaahu ahad benn yoon ku def loolu loolu ñu ci wax ciw yiw dana làmboog loolee ñaan yàlla subhaanahu wa taala may ñu xolub taataan bu mën a jëfee ndigal yi ñuy dégg ñaan yàlla itam lii ñu dese ci koor gi ñu mottali ko te lépp di lu yàlla suñu borom nangu di leen jox dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi ci jataay bi ci télévision bi xasaay TV di leen ndokkeel it di leen balaax te di leen balaax di ñaan suñu borom suba subhaanahu wa taala fekk suba ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أنا أسوي بمجد